Euh, li nga xam moy euh, que jot ay invitation venant de l'IMF euh, bagn fa démé ñu profiter ci dem pour nouer ay contact Des partenaire bi nga ci solo un franco-thiessois bi nga d'accord na pour nous liggéey te ne sais sax mom dañoo waxtaan ba paré mu man leen di au marché central amna site bi nga ça fait plus de 800 mètres carrés ma fofu man paré na fa millions ak mais ñu ni ko am nañu un problème moy que mbalit bi dafa doy war dañoo bëggoon nga jappalé ñu projet intéressant parce que ici d'incinération c'est entre 2 milliards 3 milliards

dañoo bëggaat nga dollil ñu ñetti benn commune bu nekk am benn tasseuse mu d'accord joxe instruction adjoint na ko toppal ma requête maire yi pour que ñoom ñu am ay benn donc je pense que loolu lañ fi indi woon léegi nañu nekk day wax ay deal dama bëgg mu leer ñi nga biir Thiès fii amul ñu nga xam ne ñoo ñu gën a engagé derrière Idrissa wala fidèle derrière Idrissa Seck euh, coow lii mi ngi nekk autour de Talla Sylla Talla la dafa tànn yoonam ñun ñu tànn ngor ak jom ak fayda le président Idrissa euh, si lolo, lolo duñ ko pour rien au monde pour ànd ak parce que nous la dit. Nous ñu dañuy mais 2006 2005 lañ tambalé xam Idrissa ñun 96 Nous top ci si top en nous du wala ay ay ay yenn yi moy tax ñuy donc loolu la bëggoon wax si voyage yi franchement liggéey moo fa yobone te def ni liggéey yi vous bu ngeen nangoon ñu dem ma won leen santé bi site bi déjà ñu koy aménager ñu xamni lu ñuy wax déjà route nationale bi 2 kilomètres la dañ koy pavé loolu amul won Thiès vous nga jakarlo c'est plus de 800 mètres d'espace vert et de bancs public. amu fi

mbalit bi nous même bu ni mais avec les partenaires yu am gis maire sergi, d'accord jox indi ay benn loolu là solution pour que ñu régler les problèmes. yu point euh, projet bi nga c'est millions ça veut dire que zéro activité

da see bokk buy wax les domaines moi le foncier mais maire boobu bu yoree compétence bi nga ni mi ngi def mi ngi dugal loxoom ci éducation yi mi ngi dugal ci santé mi ngi dugal loxoom ci aménagement environnement mais noonu la wara dougalé loxom ci souf bi ba nga xamni duñ ko sax saxé parce que tay boo bo deful ay lotissement régulier nit yi ñoy daggal sen bop ay kër yoon duñ ko bàyyi mu nekk ay zone irrégulière donc responsabilité boobu nak ñun la incombé te tay déjà administrateur bi nga xamni mom mo fi nek nga xamni tay mom dafa am rôle bu reuy ci walu souf bi moy euh, le recevoir des domaines même bu fekke ni euh, mi ngi def politique mais duñu xol ci activité politique bu mu ne dañ koy xol comme au cadre bi nga xamni tay ci si position bu mu nek munoo def souf munoo munoo wax ci souf te mu daw jëloo lang ak mom donc ñi nga xamni ne dañuy japp dañuy jël dañuy caaxaan donc mo fi nekkoon te damay wax 2011 bam fi nekké ba 2017 amul lotissement ñun ba ñu ñëwee ba léegi amul lotissement kon lu ñuy pàccoo amu fi lu ñuy pàccoo amu fi donc loolu dama buggoon mu leer nañ déjà lu ma wax mooy maire bu nekk xam nga lu ma lu ko war donc bu ko defee Cees waaye dina jis ni ñeenti maire yaa ngi liggéey te looloo am solo nous ne sommes pas ici, parce que je suis commune de Nord là, c'est plus de 3500 hectares, 19 quartiers, 104 000 habitants, Donc, les que vous savez, quelqu'un a aussi, Pape Diop de même, donc c'est ce que vous boole koog li nga xam ni ville da koy def Thiès waaye dina gis ne ñeenti maire yaa ngi liggéey. kaddu seen naataangoo bu Ousseynou Gueye bu réew mi yëkkati ak lépp ay war la jëmale ko ci Idrissa Seck. waaw waaw xam nga kooku dama koy wax ni dama dañuy ñaan dañ koy ñaanal suñu borom mu li nga xam ni moom moo ko dal mooy iñaan iññeet yi soxor yàlla teggil ko ko te xam nga euh, politique du affaire foo du activisme euh, tey boo jëlee la parti réew mi nekkul conseiller nekkul dara. amulul njëriñ boppam amulul njëriñ waa këram amulul njëriñ parti bi ñooñu ñun duñu tontonteeg moom parce que nag tey si biir Thiès boo doon boo boo fi sippee ñetti maire yi ñu leen gën a engagé auprès de Idriss Seck gisuma ko bu ñu waxante dëgg rek parce que ànd bu yàgg la boo jëlee man depuis 96 Pape Diop alalam la def ci parti bi balaa muy balaa muy doon maire maire Aliou ba mu ñëwee ba léegi gis nañu engagement au auprès du président donc kon ñun du ay waxu euh, kasaw parce que yooyu dañ koo tàmm ba fi jatara nekkee loolu la ñu tàmmoon attaquer les maires de réew mi attaquer population bi jëpp ñu ba nar ñoo woon sanctionné 2014 loolu wees nañ ko léegi dañoo nekk ay ay maires yu nga xam ni dañoo mënuñ ñoo jaaxal parce que xam nañ leen ba pare